léegi mu génn. léegi mu génn. ñaa ngi noonu sax ñëw. xam nga xam nga ne ñaa foo ko gis rek xam nga ne Modou léegi mu génn. ñaa de moom gis. ñaa foo ko ñaa ngi noonu. ñaa ngi noonu. ñaa ngi noonu. ñaa ngi noonu. ñaa ngi amul frontière ci Modou. kii dafa mais nag ñaa am na lu mu dig gars nag. Ah, nee na leen nee na leen Siteu bu daana Siteu bu daane dinaa leen jox 5 millions. gis naa ko démb. kan a jox 5 millions. man na ma ko jox rek. mais ñaa wóolu na boppam nag. walaay maa ko gën a yittewoo gars yi ma ko bëgg jox. démb rek mu ngi koy confirmé waat fële ca euh, fenn. TFM TFM. Mhm. nee na yi bu Siteu daane dina ko joxe kon kii a xam ne wóolu na mbërëm kii ni moo di loolu de noonu di savonte gars yi. noonu. xam ne léegi lu ngi fi ni Modou Lo. vieux. vieux vieux vieux vieux jigéen ma tuuti. man jigéen la ah vieux sen. ah gars yi ngi ambiance ci suuf de ñoom. borom sen teranga. Eh, ay non ça va mais vieux. mais vieux lii lii lii yéeme na de. non yéeme na trop. yéeme na trop. yéeme na trop. ñaa ngi noonu tàmbali na. waa dëgg la. xoolal ñu naaj bi safee rek. ñoom ñëpp ñu ne eh. ñaar ci ñun la nekk. waaye ñu nit ñu ne ci ñoom rek. ci ñun la ne waaye ñu nit nañ nekk ci moom rek. Modou Seye mi ngi ci biir. Fallou Loum. yéen ñëpp jaajëfal nañ leen Fatoumata Lo Fatoumata Lo tamit mi ngi ci direct bi ko ñu ngi buntu kër Modou Lo di xaar Modou Lo bu buntu bi ñu yaakaar ni Modou Lo mooy génn. jërëjëf Ibrahima jërëjëf. borom Dakar plus. amaat sama waa bi. Birama Thiaré. Alpha Diop. Astou Dieng. waaw dimbali leen ñu loolu loolu rek lañ leen mën a ñaanal ku ci abonné gul aussi mu abonné xam ni loolu ngeen ñu mën a doolelee waaw ñu nit ñu ñu sacrifié wu rek toppal leen ko waaw ba lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko dund fii tey ñu jëlal leen ko waaw lii làmb la joo xamante ni adduna bi da koy xaar ba Sénégal rek waaw ñu ci diaspora noonu sous région bi noonu ñëpp ñëpp ñëpp dañuy xaar làmb ji tey. gisoo waa Guinée Bissau sax ñu ngi signalé wu. gisoo buntu bi heure bu ubbeekoo ma yaakaar ni Modou Lo mooy génn. ñu ngi may tiitoon rek. waaye comme comme ñaa ñëw na. am nañ yaakaar que ni mu yegg si waa Gambie waa Gambie tamit ñu ngi fi. Modou léegi ngeen ban Vieux Mbaye la mbaa bu nekkul bi sama koñ damaa xam benn Vieux Mbaye quoi du ma sonal waa kër si tey ñu ngi ci biir direct bi de. dugaat continué ay mbiram. Modou Xarañ Lo fii mooy Pape Diop de. Modou Xarañ Lo fii mooy kër. Modou Lo génnal. buntu bi heure bi bee koo ma yaakaar ni Modou Lo mooy génn. wallaay mais nag léegi tey parce que xam na ne. ñi naan ko ñi naan ko waaw. xam nga ne gars yi ñu taxaw si kër ngi seetaan direct na teg kurus bi tuuti rek. dund <laughs> direct bi xam ni gars yi ñu ngi xaar. ni ko xale di wooyee nee na ko tàmmal. moo leen yaa leen ko tàmmal. bëri

xale yaa ngi door ñaanee na 5 millions yi moom moo ko wax def bu Siteu daanee leen jox 5 millions mooy ko walaay teg ko sama loxo rek yow. war na yàlla waaj li may tiital rek heure bu bi ubbee ko ma yaakaar ni Modou mooy génn. mu génn amaat. Antoine Ahmed Seydi Ibrahima Ndoye nee na Modou Lo day wàcc day wàccee kaamil. <laughs> Modou Lo bu naree wàccee kaamil duñ fi jógee de. <laughs> Modou day wàccee kaamil ji dina bi du ñëw. <laughs> est-ce que du du la indi nga xat. ah ta nga ne fi. Eh. ta nga ne fi. da nga war a dégg nga nekk. yaa oustaz da laa war a jël nga xamul ko amaan. ndeysaan gis ngeen ambiance bi am fii ci bunt kër Modou Lo xale yi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ne ku dul Modou Lo mënul am ci ñun lii ku dul Modou Lo daf nuy xaar ci lii ku dul Modou Lo hey Petit Cola jëlal ma Petit Cola ji jëlal ma Petit Cola eh, waay naw Samba ak soow ah. morceau crème waaw loolay na sedd na sedd la ñu wootee. day day la mais tey xam nga ne. sarax boo musul gis di nga ko fi gis tey. non nañ xaar lu ne. sarax boo musul ne. kon nag la lu leer ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. ndeysaan dëgg la la. gis nga Massi la mu ngi si la ngi noonu. Massi la ngi noonu. Massi la ah ah oui ma waa parcelle yi ñoo ma ñëw parcelle jàmm gën laa doon dem waa parcelle yi ñoo fay <laughs> ne ma ñëwal <laughs> ay Fatou Gueye mi ngi lay rey rek Ibrahima Fatou Gueye mi ngi lay rey ah Fatou Gueye de yow lay rey nag man da ngaa neex nuyu ma Fatou maa ngi lay nuyu bu baax Fatou Gueye. maman Coly nee ndam rek Fatoumata Soumaré nee kontaan naa kontaan na ma. ah moom mooy na ko. waaw ah, mais na nga koy may ay simili rek te ko ci mu sedd mi. tey combat bi moom. fii noonu uh-huh. luñ bañul rek bañul ñu ko. dëgg la ñu ne ñu ne ñoom. Hmm. allah. ay bien avant. pendant ba ci après incha allah nañ fi yàlla may bakkan bi rek glace ngi noonu na gën a sedd rek na gën a sedd rek na gën a sedd rek xam nga ni sarax yi weex daal moo fi gën a safe yi ma gis yu weex yee fi gën safe de lu ci mel ne glace xorom soow meew ah yi sax tey weex la <laughs> lamb jàng nii machine la ngi noonu ànd ak gars yi ñaari glace mu jiital leen ne leen ñëw leen li may def fële laa koy defee mu ngi noonu machine la foo jëm machine defee ko fii defee ko fii ko noonu parcelle la ngi nii de parcelle la ngi nii Modou Lo génnal xam na bi wàcc na sa gars yi nee nañ la ñaan gi nangu <laughs> jërëjëf nee na loo ndam rek te xale man nu ma di xalaatee ak naaj bi waaye de ñoom seen yoon new tey bi toll nee nañ wàcc na de nañ nee nañ xarnu bi wàcc na de ah moo ci bu mu jël kurus bi daal bu mu jël kurus bi na génn ba pare ah ah <laughs> bu dee moom rek la jàng ñëw baax na waaye damay bañ ñu teg ci Bakara ak bëgg ko jël Bakara ba naaj. Zé sama ci duudu de. duud day noyal. tey day noyal. nee na Modou Lo neex a ay gaa yaa ngi nii de waaw Modou Lo génnal nag xanaa ma ñaari kaamil ngay wàccee de sarax yaa ngi nii fi lu mu yore nii mbuus bi lan la nii ay pain au lait wala nu mu ay pomme la fruits yu bakkane yooyu la yooyu baax na ci tàngoor gi yooyu. Massi laa ngi noonu. Massi la ngi dugaat ñëw na ñëw na def benn affaire am rek dugaat. Eh, eh, na beneen glace. toj na eh, beneen glace. ñetti glace. beneen glace. ñeenti glace. waaw waaw. aussi la ngi noonu fruit ya ak paquet suukar yi Ibrahima sarax yi daal dafa mel ni ñoom lu weex lañ leen digal sarax yii dafa mel lu weex lañ leen digal ndax ku gis naqa ceeb ñu ne deete waaye xorom si génn Assane Diouf